voilà soxna si ñu bàyyi la nga présenté. waaw maa ngi euh, soxna Ndeye Fatou li sabab euh, jotaay bi nag mooy revenir tuuti un ci combat bi ngeen doon mën a euh, par rapport ak seen situation voilà mais balaa ñu ciy ñëw ndax mën nga ji lan moo sababoon maanaam tey jii seen maanaam ñaxtu googu noonu ba ngeen dem grève de nekk si dañoo nekkoon si benn projet boo xamante ni dañu tudd classe passerelle. classe passerelle nag soo ko déggee euh, mooy euh, projet boo xamante ni la c'est un projet de l'État lancé par UNICEF en collaboration avec les IA et les maintenant dañuy jëloon ñu recruter ñu defal ñu formation si centre euh, CRFPE yi. ñi ay inspecteur de l'éducation ñoo ñu formé bu ñu formé pare après jox ñu ay ordre de service euh, affecté ñu ci école yi yaa am na ñu bari ci ñoom fi ñu leen affecté sax dëkk yi ñu leen affecté sax amul école mais ñoom bi ñu demee ñoo créé foofu école waaw projet bi nag lu ko tax a jóg mooy yi nga xamante ni dañoo demoon ba commencé jàng. Mhm. dañoo dem ba commencé jàng. mais amuñu moyen yi ñuy yeggale seen njàng maanaam seen parents yi amuñu moyen wala ñi nga xam ne mosuñoo am chance dugg école projet bi yooyu xale yooyu la jël mayaat leen change andi leen su ko defee ñun ñooy enseignant yoo xamante ni ñoo leen di jëlaat former leen ba ñu amaat seen niveau si ñi nga xamante ni jotoon leen noo commencé bàyyi après ñu reversé leen dans système formel loolu mooy classe passerelle loolu mooy classe passerelle jaar jaar la parce que même man question boobu noonu ba sànq rek am ku ma ci wax tam mën a mel lan mooy euh, classe passerelle parce que mosuñu xam lu ne mel d'habitude du loolu lañ miin ci suñu système éducatif c'est que mooy jaar jàll n'est-ce pas mhm. léegi ñu suñ jëlee xale yi dañuy jël formé waat leen ba ñu amaat seen niveau ñu verser leen dans le système formel maanaam ci école publique yi ñun loolu mooy suñu rôle loolu mooy enseignant des classes passerelle c'est ça léegi nag loolu bi mu amee euh, ñu parfois dañ lay affecte si dëkk yoo xamante ni dafay sori torop am nañ ci benn collègue boo xamante ñu fi ñu affecté ak Mauritanie Mauritanie c' est de 18 kilomètres xam nga foofu sori te ñoo ngi sant yàlla bu baax nag ne payoor gi demeewul noonu dañuy jànkoonte ay ay difficultés yu bëree bëri bëri léegi loolu bi mu amee ñu ñu ñu ñu ñu ñu gis euh, recrutement des 5000 enseignants hmm? ak ñun lu ñu daj yëpp si école yi léegi ñu jàppoon ne ñun état ak niñ ko nekkalee ci àll bi di sonn su demee bay jël su demee bay jël ay yeneen jàngalekat di leen di leen di leen defal di leen recruter di leen yóbbu ci fonction publique donc dafa war a commencer par ñun ñi nga xamante ni bu dara daaw doonul dara ñun ñoo ngi ci di sonn pour xale yooyu noonu wàññeeku ci mbedd mi ñuy taxawaalu mais loolu amul ne dañoo gis ne état dafa jël ñeneen ñoo xamante ni peut-être mosuñoo jàngale walla mosuñu amuñu sax yenn diplôme yi amuñu sax baccalauréat jël leen ñun loolu la remarqué quoi jël leen. da seetlu ab discrimination. bi mu ba mu desee lu dul ñu sélectionné ngeen gis ni yéen ñi yaakaaru ne dañ leen di jël ñu jël ñeneen à votre place. ñu loolu nag moo ñu metti moo tax ñu jóg nag di xeex léegi loolu bu mu amee euh, avant recrutement 5000 enseignants sax ñun. dem nañ fu nekk fëgg leen porte bu nekk pour ñu dimbale ñu pour ñu verser ñu dans le parce que nag nit ki ak liggéey boo mënti nekk boo ci nekkee da ngay ñaan yàlla di avancé léegi nag lii bu mu amee ñu gis ne ñu sentir ñu suñu bopp on est 210 au niveau si cette cette région yi ñu choisir cette kii 210 leen woon mais biir recrutement yi résultat yi mu génnee on a ko vingt 29 kese lañ ci jël loolu nag la ñuy bañ. dañoo bëgg ñun ñëpp ñu jël ñu parce que nag mérité noonu ko dañuy liggéey dañuy sonn ci xale yi te lépp lu ñuy sant dañ koy def enseignants yi nekk xam ne ñoo nekk si publique bi yóbbulawuñ ñu dara parce que ñun dañuy defar ay fiche de planification dañuy assister cellule cellule pédagogique yi donc ñoom li ñuy def la def suñu xëyee ñu xëy suñu gontee ñu gont. maanaam daal li ngeen bëgg daal mooy ñu statuer leen. fonk leen ngeen am taxawaay jàngalekat comme ñeneen yi nanu ko amee. ok mais euh, bu weesoo loolu euh, lan moo dàkkal maanaam tey jii nii lan moo indi levée mot d'ordre bi. waaw c'est parce que loolu bu mu amee ñu naxarlu ko fii euh, semaine passée. def neen kii nii semaine passée def neen euh, point de presse pour yëgal gars yi mais dafa mel ni dégguñu woon après nag bi ñu xamee ne instant bi solution amul ñu entamé une grève de la faim léegi bu ñu defee grève de la faim boobu noonu après vendredi lañ ko commencé vendredi ci ngoon ci la fi sawru seen ñëw bi mu fi ñëwee waxtaan ak ñun ñu expliquer ko le pourquoi ñu nekk fii après ci la ci la ci la ci la ñu promettre ne dina dina woo ministre bi ci la woo ministre bi waxtaan ak moom après mu ne ko dinaa xool na la ñuy def ba def rencontre entre les syndicalistes et les enseignants des classes passerelles après ci lañ def euh, rencontre boobu ñu créé ko ba mu am après nag lañ fa waxtaanee bi bi bi ñu fa waxtaan li ñu fa waxtaanee ba pare. ci la gëstu lan lañ fa waxtaan. non am loo xam ne moom moo la gàtt. mais en tout cas. dañ leen promettre wala dañ leen wax ni dinañ def lañ fa waxtaan. dañ ñoo promettre dañ ñoo promettre maintenant instant bi ñun am nañ ci moom confiance ñun nag arrêté wuñu complètement on suspendu la grève. mais arrêté leen. kon à tout moment mën ngeen ci dikkaat. ci yan condition ngeen ci nar a dikkaate. l'avenir nous jugera incha allah en daal lu ma la mën a wax mooy dañoo suspendre mais arrêté wuñ la preuve du contraire nag mais lu ñu ñaan yàlla mooy affaire bi yem fi ñu am lu bëgg ñun ñoom ñu dem parce que nag bu ñu waxtaanee lan ngeen bëgg réellement lan ngeen bëgg li ñu bëgg mooy intégration dans système formel loolu kese la bëgg ñu considéré ñu comme ne ñeneen ñi parce que ñeneen lu ñuy daj loolu la daj loolu la bëgg moo waral ñu ñu ñëw fii nii suñ ko amee alhamdulilah suñ ko amul on va continuer. est-ce que continuer bi tamit narut a gën a indil loraange ci seen wér-gu-yaram ndax grève de la faim moom doon na méthode gu xaw a jafe. mais mais su ko jaree lu mu laaj rek dinañ ko def incha allah parce que on lu mu laaj rek. dinañ mais xamaguñ on continuer la grève de la faim xamuñ beneen beneen méthode jël mais ce que j'ai à vous dire mooy mm-hmm. on n'a pas arrêté mais on a suspendu ñu ngi lay jaajëfal ci sa euh, ci li nga ñu nangul jotaay bi ndax ça n'a pas facile euh, waaye il fa lekk ñu leeral tamit ndax bëri na lu lëndëm ci xelu askan wi par rapport ak seen situation Euh, fanu lay bàyyee nga tëj xanaa mooy peut-être am nga yóbbal wala am nga loo xamante ni tamit mi ngi ci sa xol bëgg nga tey jii nii yóbbante ko sunu autorité par rapport ak seen situation. waaw xanaa di wax rek ne ñun moom ku jàppale rek lañ bëgg surtout syndicalistes yi nga xamante ni ñoom ñooy gisante ak ñoom ministre ñu gën ñu see jàppale waxtaan ak ñoom ba li ñu bëgg ñu defal ñu ko incha allah. di la jaajëfal.